والله والله واو واو واو واو لنا شمس الهدى والله كشف الدجى لمن اقتدى والله نيسان والله نيسان بارك الله فيكم واو كي جمبان واو كي waaw kay. wallaay. waaw. waaw. te yàgg na. ci kaw lépp. te yàgg na de wallaay. wallaay. ndax. waaw. sama papa si jàmm fa waaw. dafa nekkoon benn ak seexal xalifa. wallaay. mu nekk xaritam jige ko lool. wallaay. nekk xaritam nekk sëriñam. wallaay. sëñ Babacar. nekk ba jamono. waaw. mag dikkal ko. waaw. mu sëñ jël sëñ Alpha mu ne la sëñ Cheikh dénk naa la sëñ Alpha. wallaay ndeysaan. xarit bi dafa sama diggante sëñ Alpha yëkkat naa ko jox la ko yow sëñ Cheikh. wallaay ndeysaan. sëñ Alpha waranteeru. wal nag yow. wallaay. foo nekk mu fekk la fa. wallaay. fu mu nekk nga fekk ko fa. wallaay. ba ñun ñu judd ci biir law. wallaay. muy àddina di dem. wallaay. ba yàgg. wallaay moom it mu magal. wallaay. mu jëf sama loxo. waaw. ànd ak moom. waaw. ba Dakar ci yow. wallaay ndeysaan. mu ni la. waaw. la sa bay tëlewul. waaw. di kattan. waaw ci xarit bi. waaw mu woo ma woo la. waaw ni. waaw dénk naa la seex mii. wallaay ndeysaan. ma nit tële ñëw na ci man. wallaay ndeysaan sarak la indi. wallaay kon loolu. waaw ba léegi maa ngi ci loolu. wallaay ndeysaan. nga yëkkati benn cinq bu la. waaw 1969. waaw. nga ne ma demal jënd jaaro. waaw ma dem jënd jaaro. waaw jaaro baa ngi nii. wallaay ndeysaan. loola nag. waaw. te fi mu toll. waaw maa ngi ca loola. wallaay ndeysaan. moromaa yëpp. voilà. di sa taalibe xarit. wallaay di ñu ngi sa gannaaw. wallaay ndeysaan. ñu ngi ci biti. wallaay ak mbooloo mi. gis la yombul. waaye boo leen déggee. waaw seen xol sa dañoom ñëpp. waaw dëgg la. ba nga gëjee moroomam. waaw tegu xeeru xabru bi. waaw ba léegi. waaw ñoom sa kàddu lañ doon mar. wallaay pour déglu ko. wallaay dégg nañu ko démb. waaw dégg na ñoom ñëpp. wallaay ndeysaan. jëmm ci sëñ Moustapha nag. waaw ak sëñ Mouhamed Sow mii. waaw ak sa mag ju baax jii di Pape Malick. waaw nga teg suñu kanam. waaw doy nañu nu. wallaay ndeysaan d'accord nañu si ñoom tegal la. wallaay ndeysaan. loolu wax lu ñu nu wax ñu jëfe ko. dal na yàgg ñu tere. ñu bàyyi ko. yal na yàgg. man nag sab soldaar laa. wallaay taxaw rek wallaay ndeysaan. ndax sama baay. waaw moo ma yëkkati. waaw teg sa loxo. wallaay ndeysaan. fekkoon na cofeel gi ci man nag. wallaay ndeysaan. ndax may nekk Pate Lorma. waaw. kii xam na loolu. wallaay. balaay bàyyi ko ñëw ci yow. wallaay ndeysaan. nga dama jox ndigal. wallaay may dem ci góor gi. wallaay ndeysaan. ba léegi. wallaay ndeysaan soo nekk it. wallaay lu ma gis kon nag. ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla egg suñu kanam amiin amiin yaa rabbi doole barkeel bu baax a baax amiin amiin yaa rabbi dégluwuñu kenn wallaay ndeysaan yow nag lañu seen tawat faju na démb wallaay ndeysaan ak démb ak tey wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan xol hmm. na wallaay raggoon ñëpp a feebaroon. wallaay ndeysaan. ngir. nam ma gis la ak bët. wallaay nam ma dégg sa kaddu. wallaay nam ma sa jotaay. wallaay ndeysaan. waaye nit. kii xamante ne jëfanteel. wallaay yow mii xam suñu saafara. nga génn. ngir ñu gis la. ngir xool yi saafaraw. waaw xam nañu sax talu loonu. sa digganteeg sa borom. wallaay. sa digganteeg ndigalil mag ñi. wallaay ndeysaan. ndax sax Seydi Hadji Malick. seexal xalifa waaw ku ñu ni yaafu kon yaafu wallaay kon yowa wallaay ndeysaan dañuy wax naan hmm. fa woon hmm. ña woon na woon wallaay ndeysaan wax joojee waaw dama de wax jooju waaw yaa ko moom wallaay ndeysaan fa mag ña demoon waaw fa mag ña waxe fa woon yow. yaa tax ñu doon def. wallaay. sama ma ni. waaw. Papa Sall Xalifa. saa yoo xamee mhm. xel mi lënd dana la woo ci biir néeg. Mhm. ne la. Mhm. nan la. nga seet. ne ko nii la. mu ne doxal ca kanam. kon loolee. Serigne Fane ci lu bëree bari bari bari. wallaay ndeysaan moom ci boppam. ànd naa ak moom. ci digga watee ak Senghor mm-hmm. ba mu passé bu passé mm-hmm. Senghor yónnee ci moom mm-hmm. jox ko audience ma ànd ak moom ñu ñëw mu ni ko ah Serigne Alpha sama mbokk nga séeréer nga bay séeréer te da nga séeréer mooy sa mbokk ma wote ak Cheikh Tidiane nga ànd ak Cheikh Tidiane bàyyi loolu nu mu demee sëñ Alpha ne ko. bu ngeen delloo woon te suba. ma jàppale ko te bàyyi la. wallaahi ndeysaan. mu ne ko lu tax mu ne ko la ma séq ak moom. waaw fa ñu jëm. ma ko jëm. wallaahi ndeysaan gis naa Babacar Sy. bàyyi ma fi ay bàyyi seex. wallaahi ndeysaan. barakallah keneen ku ma wotee ak moom. waaw bi ma jàppale bàyyi ko mu ne keneen ku woteel tëdu si. te du moom. ma jàppale bàyyi koo kay. wallaay ndeysaan waaye boo suba rek ma bàyyiwaat la jàppale. wallaay ndeysaan. wallaay ndeysaan kon ci loolu la nekk ñun njaboot gi. wallaay ndeysaan ñu ngi sa gannaaw. wallaay ndeysaan Serigne Alpha yow la xam. wallaay ñun yow la du xam. wallaay ndeysaan. man boog. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. yaa sama lépp sagal nga ma fu ne. wallaay ndeysaan foo fekkiwul foo nekkul sa bàtti na fa ne. wallaay ndeysaan. du Thiès du Ndakaaru. wallaay ndeysaan du Kaolack fu ma fa yegg ñu xoolee ba Serigne Cheikh Diagne. wallaay ndeysaan. kon nag maa ngi la ñaanal yàlla. wallaay yàlla na yàlla yokk sa fan. amiin amiin yaa rabbal aalamiin ñii ne doy nañu. sëñ Mansour wallaay sama mag ju baax ji di Pape Malick wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ñu day man wallaay ndeysaan wallaay surtout leen ndigal li nga xam ne joxe na ko wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kontaan nañu fajo nañu wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf wallaay barakallahu fiik ah li mu wax yëpp dëgg la sëriñ Alpha daan naa xëyee fii man rek waaw waaw Serigne daan naa xëye fii ci sama oto man rek bett ko ci këram suba teel ni ko ana ndékki la mu ma bëye fi am de ma ni ko kon rey ko mu rey ko tabarkalla ñu wàjj ndékki rek mu tooñ tukulóor tooñ séréer toog fa nu waxtaan waxtaan waxtaanu àdduna yu jaxasoo yi jaxasoo yi ba mu rekk kontaan ma it sama xol féex ma daal koy tàggu jëlaat sama oto boobu man rek ma daan ànd waaw boobu man rek ma daan ànd waaye li ma ko bett suba teel ëpp na waaye bu ma agsee rek mu ni ma ndekki amu fi de ma ni ko lu fi nekk mu ni ma bëye fi nekk ma ni ko reyal ayca la mag mu baax la waaw mag mu ndi eh, ndigalam baax la maa ngi fàttaliku bi may bëgg a génn réew mi te wax ko ko mu ni ma bun la tee doxi sa soxla ndax li li sàmmaam li mu nu joxoon du ñeeguñu ko ba tey sa bàyyi li mu nu joxoon du ñeeguñu ko ba tey kon nag bu nu la tee doxi sa soxla wallaay ndax boo demee di nga indi indil lu gën loolu waaw yàlla xam na ko cees lañ ko waxtaane maak moom waaw bu wax la rek nii yooyu rek a fi nekk xol yooyu rek a fi nekk dara lu ci nit mën a wax lu dul ne leer la nekku ci waaw leer la rek mu nu donn tabarkal la tabarkal la tabarkal waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw wallaay ndeysaan waaw waaw waaw waaw nga wax ko ni ko fi ngeen toog waaw nga ko bisa ngi boo xam ni waaw teg téeméeri at waaw duñ ko fi am wallaay ngeen waxtaan waaw mais ci biir waxtaan wi waaw mais mu nga mu gis nga yor xaalis bu bari waaw nga xaalis bii soxna umu si laa koy jox waaw mu ne gis na ko ci waaw nga ko xaalis bii yow laa ko andil waaw jël ko. waaw ndax sa coono ci kër gi. waaw. loolu moo ko yëbbante. waaw te loolu bi waaw moom yëpp ko waaw réyul bis na la na eh, nettali naa leen ko. soxna mul xëyre. Ah. sol mbubu basin bu weex. ñoo fekk ma ci wetu baraag bi maa ngi tëdd amee téere di jàng maa ngi jël espèce de parasol pour bañ jant bi tàng ci man mu àgg suuf wax ma ñaari baat yoo xam ni du làmmiñu àdduna waaye làmmiñu waa barzax la waaw ni ma nga yóbbaale ko yàlla xam na ko xam naa lu muy jàngale waaw pour wax la ni rek ñoom seen xel a ngi ci nun mu deppok loolu nga nettali legi yalla xamna ko mi ngi sol mbubu bazin bu rafet bu wextal tudduma ñaari baat ñemewuma ko tudd nag waaw ndax daf du fii waaw ñoom fa ñu nekk la ata ñemewu ko tudd waaw yàlla xam na ko te daanaka doon nelaw ndax booba dama sës nii rek waaye tëdduma yàlla xam na ko mu wax ma ko ma daal di jóg rek bind ko bu wax la ni ñoom fàtte wuñ ñu seen xel a ngi ci ñun tabaarakallaahu tabaarakallaahu loolu la yàlla dogal bu ko defee rek ah li xaaj maxtar cam daan wax ni nee na lu dul doy tuuti doy na ci ah, na ko faral di wax bu defee rek nu joxanteeti rendez-vous moo xam fii la daje walla ndakaaru bu mu ci doon rek baax na waaye fii dootul ñu fi gëj waaw wa defee ñu joxe ijaazaati ci kàttanu yàlla ah, ndax itam lu am solo la waaw farata piir la yàlla xam na ko hmm. ku nekk ak sa alal benn bu sell wala xaj naasi bu sell ñetti salaatul fatih yu sell ñu dugal ci njaboot yi dugal ci réew mi dugal ci sunu bopp dugal ci kilifa yeeslu ëpp naa xeeb waaw yeeslu yi ëpp naa xeeb ndax boroom moo ko joxe woon tabarkalla tabarkalla tàllal loxo yëpp nu jàng ko te ngeen yéene ci seen bopp yéene nu ci tabarkalla wallaay wallaay bay waaw tabarkalla mag ñi demuñu fen njabootu lagi gi basi, Mbay Baasi mu ju dundam moo ma ne may ya la kamil bi bu mako jange ya ko mom ya yalaate bi mu demee yagul lol Omar Samb mi ni man de dama jaxlé da dama gis gor gi muy jang alquran ci buntu keur monsieur Mbay bu ci ambassade mi ngi dox rekk di ko jàng mais ma gis ko rekk nit tërët bër set rekk Moustapha doom bi dal di agsi ñu xam ni yéeneem la te yàlla nangu na yéene ba moo taxit lu ma am ci moom it boole leen ca tabaarakallaahu yooyu yëpp tabaarakallaa wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw xam naa ko wóor na wóor na xam na nu ko wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan yàlla wallaay amin amin amin amin amin waaw te bokk mel bu ma ne ak mel mu dox. wallaay. a fere la wallaay. ba sama yaay mu di xuloo moom. wallaay ndeysaan. si wallaay ndeysaan yàlla nga la ma bi teg. yàlla leen ko yàlla fay. wallaay yàlla nga am téeméeri at tabarkalla. te mu ànd ak wér te yàlla defal la sa yéene waaw dinañ la di jëw dinañ la di jëw de bu mu ne fu mu jëlee njàmbaar man leen jaasukan leen moo ko nàmpal moo ko yar leen te nag soxna su itam nag borom pas-pas la woon leen ndeysaan sëñ Babacar nee na keroog bi ma nee Maodo dama ko bëgg a yóbbu Tëngéej moom mu ni tekk bu mujj ni ma ah dama mel ni yilifuloo ko nag waaw dama mel ni yilifuloo ko maa ko yilif kon bàyyil ma ko fi waaw mu laa xam ni ndeke <laughs> ki ma nekkal na bokk sëriñ tabarkalla mu mel ni kon nag bu nu yoboo rek dalal xel yi tey ñaan di ci boole dalal xel yi tey ñaan di ci boole tabarkalla wallaay wallaay ndeysaan borom bas bas la kon nag ñu jàng jàng faatiha jàng falax naasi bañ ko xeeb yaa nga ñetti salaatul fatih dugal ci soxla yépp jëbbal ko cheikh al xalifa radiallahu taala anhu Yeah. na yàlla defar yëpp na yàlla defar yëpp